moom njol séeréer abi bi sif la na ndeysaan boobu moo nekkoon boobu mooy nekk cinquième combat bi ndeysaan Pape Mor Lo Junior moo leen wan ginnaaw Pape Mor Lo Junior moo leen wan ginnaaw njol njol séeréer njol séeréer moom ngeen jàkkaarloo ndeysaan Pape Mor Lo Junior moo leen wan ginnaaw dégg nga deuxième combat ndeysaan nekk journée production te nekk samedi 11 novembre ñaari mbër yaa ngi leewtoo ñu ngi leewtoo ñaari mbër Pape Mor Lo Junior attention jàppante nañ jàppante nañ attention waa Ndiol séeréer mi waaye lamb ji lamb séeréer la allahu akbar la ilaha illallah Pape Mor Lo Junior la ilaha illallah waaye daan na bu amul benn werante ndeysaan waaye xale bi mën na bëre waaye oho waaye xale bi mën bëre la ilaha illallah Pape Mor Lo Junior daan na ndeysaan Ndiol Séeréer la ngi noonu ndeysaan toog ci biir géew bi boo daanoo da ngay wéet oho la ilaha illallah ndeysaan bëri nañ combat bu gaaw te neex tamit diggante Pape Mor Lo Junior fekk door waar moo daan Ndiol Séeréer bu Malick Sy ndeysaan te nekkoon cinquième combat bi ndeysaan ci journée Mousna production grand combat di dox si digganteeg serpent noir ak doomu jàmbur ndeysaan waaye cinquième combat bi ngeen am noonu ndeysaan ci biir géew wi. di sant sama papa di nga ñaanal yàlla yàlla allahu rabi di sant waa waalo waalo rawatina maa ngi sant bu baax. mais balaa ngaa sant ñëwul ñu ci bëri bi ndax action si kaw action man jaraatu Ndandi Fall mii laa eh. su ma mënul rek ñu xoolaat ma. waa bi naa ko nee man doomu mbër laa jarwaatu mbër laa loolu waroon na si attention bi tey combat bi ko dafa yooru mais bëggoon na bëggoon dóor daan ko mais nii la nii la ko yàlla may xeex parce que Seydina Mohamed loolu laa indi woon. kon tey bakkan bi rek nga fi tegoon. ma wax di ñaan serpent yàlla may ko ndam waa Grand Yoff yëpp ngi sant waa Waalo waa Njaxaay Foos maa ngi sant ñëpp Waalo Waalo yëpp di sant waa Dóor waa tam waa Igiri di sant sama coach Fadel Ndiaye maa ngi sant bu baax coach maa ngi sant bu baax grand tier limousine coach américain di ñaan yàlla arbitre suba yàlla may ko ndam di sant grand tier ñëpp maa ngi sant sama gars yi calambeer mi ngi nii man ñii laay kontaakal xoolal geesul man ñii laay kontaakal booy duñu ma téye di sant grand Gora Sarr bu baax di sant ba Alaaj Sarr maa ngi sant bu baax a baax sama nijaay sama lépp mais fan nga si kaw ba spécial laa bëgg a bëri eh. waaw waaw man ma damay dem maa mbaba damay li may def si temps dama ko def si mbaa ba pare Adama dama ñëw pour bëri bëri bu gaaw comme samay morom. waaw nañ la xaar. nañ ma xaar di ñaanal sama booy yëpp yàlla ma leen ndam. waaw waaw maa ngi sant ñëpp ñu si jàpp ñëpp waa waal ñu jógee waal ñëw. ki si mel ne Amadou Ndiol sama booy sama lépp El Hadj Sarr Issa Guy gi Mbaye Waalo Khalifa Deer yaa ngi dégg sama waa fan si këram Naar Diop Zalla King laay bu Paa Mor Lo waaw ñëpp waalo waalo yëpp booy ak ñi nga xam ne ñoo si man xam nga waa ñëpp ñoom def na seen participation waaw képp nga xamante nii def na sa xaalis def ko si Pape Mor Lo waaw maa ngi lay sant bu baax ñu la kontaanee lu bëri waaw ñi ma ñaanal tamit kii seen cours ñi ma ñaanal maa ngi lay sant bu baax waaw Der Moussa philosophe gis naa sa taxawaay waa Mbane ku fi en marche yëpp maa ngi leen di nuyu di leen sant ñoom ñëpp waaw waalo waalo yëpp maa ngi leen sant daal si gàttal ok ñoo